laahi rabbil alamin wa sallallahu nabiya baadahu sayidana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiramil barara wa ila yawmil qiyama mbokki julit yu tedd yi ci gox yu fasantikoo ci réew ak ci bitim réew tànn leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri yéen ñëpp maa ngi leen di boole nuyoo bi ñu yàlla boole. mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko nuyoo boobu laa tibbee ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi. muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di del si waat ci kartanal yàlla fas yéene sof ak yow li ma doon sos ak yow rek ci waxtaan yi yëpp passé ci yàlla mu am doole mu am kartan moomu suñu bëggee doole nañu ko doolewoo yàlla mu xoomal mu bëri le moomu te mu am soxlawut ca dara suñu bëggee xoomal nañ ko koom loo yàlla mu tedd mu màgg moomu suñu bëggee tedd moom ci boppam tamit nañu sàkku tedd nga ak fooraay ci moom fexe rek wàcc ba mën a dëggal suñu ubudiya fexe ba sellal suñu ibadatu jëmee ko ca moom su boobaa ñaari bu amee rekk yàlla moom ci boppam moo ñuy kartanam te limit moo ñuy dooleel ndax ab jaam lu mu xeebu xeebu bu wéeroo ci borom bu màgg bu tedd boobu borom ba mooy mujj kartanal ko muy mujj tamit dooleel ko te ku wéeru ci borom doole mujj di borom doole moo taxoon maam Khalifa Niass di wax ca diiwaanam bële di kibritul ahmar ne abdul karimi ida man daafa murtafian tilkal idaafatu min hal xafdu lam yakuni su la yàlla bindee ci suufee bind la ci xeebu bind la ci néew doole nga bëgg yëkkatiku bëgg a bàyyeekoo ci xeebu bëgg am doole bëgg xoomal demal nga wéeru ci ku xamee yëpp rek su boobaa boo wéeroo ci moom rek mu mujj dooleel la ca dooleem ja mujj la cuub la maanaam meloom wax foo bëgg a yegg nga mujj yegg fa waaye loolu lépp nag fokk ñu dëggal ak ubudiya dëggal ak ubudatu dëggal tamit ak ibadatu ubudiya nag dëggal ko dëgg mooy ñi wéral ak ngëm ci yàlla wéral ak ragal yàlla ci yàlla dagguhu jëm ci jaamu yàlla fexe ba lépp loo xamee ne ni yàlla mi ngi koy sant ñu góorgóorlu ca lu mu tere ñi bàyyi ko ab jaamkat kenn du ko compter ak njamam lu dul mu nekk di kuy topp boromam moo tax nag boo nekkee di kuy topp sag borom nga xam ne sa gox boo di yow wér na yàlla moo lay garante lu musiba rëy rëy da nga ci mucc lu jafe-jafe métti métti da ci génn xiinu gàcce mën naa xiin ci sa kaw waaye du taw lu la waaye dugg ñàkk ca génn boo ci duggee génn ca. say noon de mën nañ laa bañ waaye duñ la xeeb ndax duñ la yeb ndax ñaar ngay boole yàlla moo lay mujj suturaal la yàlla moo lay mujj dimbale la ku yàlla dimbale loo songu daan ko ku yàlla sutura kenn du la yeb te ñaar yi da nga mujj am ko iblis ak la muy mën a yàq mënalul ñi nga xam ne seen ak wax boo diyee dëgg na dara dara la leen dara la leen mën a lut ndax ñooña yàllaa leen jëlal boppam ba iblis taxawee bàkku ne la urwiyannahum ajmain yàlla ne ko nag illa ibadaka minhumul muxlasin man iblis danaa bewloo yàqal sa jaam yëpp sa gaa yëpp mu ne ko ludul sa jaam yu sell yi man iblis li may mën a mën a yàq mënu lu ma leen dara yàlla ne ko mënoo ci ñoom dara illa ibadaka minhumul muxlasin jaam yooya nag yàlla tudd na leen kon ak ubudiya lu am solo la ñaareel fu muy tudd ay gaayam rek ñu mu fonk maanaam ci ay yonantoom baatapa abdu la leen di jox gis nga yonantu beeg fooraayam nga yépp ba ko yàlla tudd dafa ne subhaana alladi asra bi abdihi waxut bi nabiyihi mutasawifu dañuy wax ne maqaamaam ubudiya moo gën a foor maqaamaam nubuwa ak ak borom risaala ñu ne ko lu tax mu ne borom nubuwatu ak borom risaala mooy kii rootee ci teenab yàlla bi di sotti ci ndaal mbindeef soo ko fekk comme risaala nga yore wala nga yore nubuwatu rek mbindeef yàlla yi nga xam ak contact ndax yàlla la délégué ci ñoom inna arsalnaaka shahidan di dem wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yaa ayyuhan inni rasulullahi ilaykum jamian moo tax foo fekk borom nubuwatu di nabi wala muy mursal foo mu xeno paan paanam ba ma ngi ko rootee ca teenab yàlla ba mais ma ngi koy sotti ca ndaal mbindeef ñu koy jariñu waaye nag foo fekk koo xam ne abdu la mooy kii jëlee ci teenu mbindeef yi lay rootee di sotti ca ndaaxal yàlla la kooku kon yàlla dong la xam ak contact war na mbindeef yëpp gannaaw bu nekkee abdu daal benn sang nga mooy yàlla sa yoon neexatu ci mbindeef yi mbindeef yi ñoom yëpp ay jaam ngeen benn sang ngeen xamu yàlla sa yoon neexatu ci ñoom loolu nag mooy secret bi tax yonantu bi saa yu nekkee ci maqaama yàlla di war a yéeg maqaama wala mu nekk ci mission bu koy tax a yéeg maqaama rek yàlla tuddee ko abdu ndax foofa amatut ak contact ku dul yàlla gis nga ko fële ba warahoo mindeef yëpp pour jubal leen ca yàlla foofu dafa ne wa innahu lama qaama abdullahi yad'uhu kaadu yakununa alayhi libadan gis nga ko tamit ba muy wax mu jëm war a def contact ak boromam bàyyee ko makkatal mukarama masjidul aqsa mu jaar ca war a yéeg juróom-ñaari asamaan yi jëm ci boromam ah foofa tamit nag foofa maanaam abdu la ko tuddee ne subhaana la si asra bi abdihi foofa tamit noonu la ko tudde ko tuddee gis nga yonentu yàlla noox mi njëkk a nekk yonentu bu yàlla yoonal foofu tamit fu ko yàlla tudd ñaare rek abdu la koy tuddee jàng ko ci alquran mu ne fa kazzabu abdana suñ jaam bi nañ suñ jaam bi waxut weddi nañ suñ yonentu bi waxut nañ suñu mursal bi mais dafa ne fa kazzabu abdana gis nga ko tamit yonentu yàlla ibrahim ak fooraayam ga doomam ya ba leen yàlla tudd ci alquran dafa ne waskur ibadana ibrahim wa isxaqa wa yaquba ulil aydi wal absar ibadana la wax def ko muy mafaulu muskur door a andi nag ibrahim bu la neexee muy badalul ne muy xat fi tafsir ibrahima isxaqa ñëw yaquba ñëw ulil aydi wal absar ba muy tudd ayubaak mën a muñam gaak darajaam juróy ja lu mu wax niamal abdu waxul niamal nabiyu waxul niamal rasulu waaye dafa ne niamal abdu lu tax mun a innahu awaab ba muy tudd daawuda ak tabaaraka neex baatam gaag mën a jàng tawreetam gaag di daanaloo picc ya ak montagne ya dafa ne waskur abdana daawuda zal aydi wa wa ba muy tudd xadir ak mën a jaamu yàllaam gaag xam bu réy ba ko yàlla joxoon ak fa mu jaar ak muusaak koy seeti lu dafa ne fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina bu yowmal qiyaamee sax fii koo ne jaam nga mu mer da may wax jaam nga commencé di rëy rëylu fëgg sa dënn xamoo maay kan bu la waxee waaye xamam ma ne ba ma la xamee dafa yàgg kanaa duhut ne yaay ki sosoo ci toqantal mëniyu kum takk nga raxasu xanaa duhut ne yaay kiy mujj ci médd kon bu nit ki fëggati na ne kanaa xamoo ma nga ne ko damaa xam sa njëlbeen xam sa mujj daraa ma safut ci yow sa njëlbeen toqantal ma niyu la kum takk ngaram raxasu ji sëg mujj ak médd la su ko defee matière yoo xam ne mi ngi ci yow nga xenoog moom yi matière la yoo xam ne da ko boo ko boo bu ñoree rek nga dem tuuri ji ko benn muy ci ndox wala mu yeneen ya ci des te yaa ngi ko xenu ni di dox ak moom di jullee aleeg moom di soloog moom ndeysaan takkeeñut kenn takkalut kenn li nekk yow ci ayib dafa bëri moo tax kuy toog naan xam nga ma rek da nga réere sa bopp boo réeree sa bopp fi nga sosoo ak fi ngay teeree ji doo waxaat loolu moo tax nag kuñ ne jaam nga nga mer waaye ku dee nangoo nekk jaam ku dewut jaama yàlla doo dem aljana ku nekkut jaama bi yàlla ñu tuddee la ko duñ la jullee néew moo tax gis nga nit ki bu xasee dee ñu tuddee ko néew bi xam naa lim néew a tax nga jël néew mu jox la soixante-six al muy àddada allahu muy àddadu allahu moo tax maanaam delloo gi ñu koy delloo ci boromam moom ma ñu delloo ak fañ koy delloo ñoo xemi xaraf allahu 66 néew boobu nga cee delloo 66 ndax nun 50 la yaa 10 waaw 6 66 su ko defee moom mooma bu demee ba xas génn àdduna ku mënoon a doon soo koy jullee dàq nga tagg yëpp jaam rek nga ko mën a tuddee tëral nga ko kuñ na jaam nga nga mer nangam ak nangam waaye bu xasee dee daa looy wax allahumma innahu abduka moo tax gis nga nit ñi bu teraanga amee xéewal am seen man-man am la yàlla am ca jàmba ñi rékki ko moomale ko seen bopp ndax doomu adama dafa féex loo ko dénk bu yàggee ci boppam mu def ko moomeelam kenn ku ne ci ñun yàlla dénk na la baay ba mu la dénkee baay mu yàgg ci say bët tuddeetoo ko jaamab yàlla bi tuddeetoo ko mbindeefam yàlla mi de sama baay ji mel ni yaa ko moom sama baay taxaw ti mu dénk la yaay nga indi fële indi man a yaaw yaaw kallim gi def ko maanaam idaafa idaafatu tasrif xam naa ne yow maanaam sa ummi sama yaay la jàllal ju ko kii sama baay la abi nga taxaw ne kii sama mbokk la léeg-léeg sax mu dénk la jabar mu yàgg nga taxaw commencé bàkku sama jabar la wala sama soxna la mu dénk la kër sama kër gi sama oto bi yëpp amul dara loo ci moomalee yàlla li yàlla moom moomale la ci daal génnee nga yàlla ba mu jeex takk wiccax ci loo xam ne maa moom lépp sama baay la sama yaay la sama doom la sama jabar la sama kër la sama oto la sama yére la samay magasin la samay tool la samay nag la yàlla mu wutu ca daal su demee nag ba yàlla def saru fam ci biir lim la dénk mënatoo ca dara lu dul xulli ay bët nga door a delloo yàlla dénkaane ba moo tax keroog ba kenn ku ne sa baay génne àdduna wala sa yaay wala sa jabar wala sa doom wala sa sëriñ wala sa taalibe ba nga taxawal ñu war koo jullee foofa da wax ne allahuma innahu abi allahuma innahu abduka wa bnu abdika wa bnu amatika kaana yashhadu an laa ilaha illallah di dem lu tee nga ne allahuma innahu cheikhi sa sëriñ la sax nga ne ma sëriñ la doo wax doo ko jël dara di la ko ci yàlla waaye foofu da wax ne allahuma innahu cheikhi dafoo ne allahuma innahu abi wala innaha ummi lépp amatuka wa bintu amatika fale allahuma innahu abduka wa bunu abdika jeex na ñi ci gën a féex nag gën cee topp seen sago mooy olof loo ko dénk bu yàggee ci moom mu moo ko moom ñoom sax dañoo féex ba boo ci amoon olof tey bu fi nekkoon yàgg fee ab tukulóor wala séeréer commencé na ko moom ne ko boppam sama sama tukulóor bi sama séeréer bi la di sama manjaago bi la yaa moom ku la féex rek ak yaatu ak topp sa bakkan kon nit lu yàgg ci loxo mu muumale ko boppam ba jël yeneen tur yooya nekk turi cosaan ya topp ko moomale ko sa bopp ba fàtte turi original wa te mooy jaam di ak ubudiya moo tax nag ku dee buñ la xasee tëral sa tur yi nga amoon nag ndomba tànk yaag lépp rekkeeku na abdu rek jaam rek du dee mukk nga ko jëlee yow yàlla kii moo doon suñ président bi yow yàlla kii moo doon premier ministre bi yow yàlla kii moo doon ministre sàngam yow yàlla kii moo doon député bi wala kii moo doon sénateur bi wala kii moo doon chef de quartier bi wala kii moo doon ilimaan ji wala moo doon nangam baat yooyu yëppu tekkeeku na ba waaj a tekkeekoo rek jëm ci bàmmeel la baat yooyu yëpp tekkeeku wan ko gannaaw benn baat dong bi taxoo woon ak moom tañu ñu fàtte woon ko duñ ko ko xooyee wala boo ko ko xooyee mu mer ndax turam yëpp mu gën a nekk hijab ci kanamam moo taxoon tur woowa rek mooy mujj mooy allahuma innahu abduka su demee tamit ba deena dekkil nañ ko mu bokk ca ñay texe war a jëmaal jana bakkan ba bu ko yàlla di waxee fek dégut maanaam nafsul abdi di jëm di di jaam du mën a dem al jana kooku tamit alquran wax na ko ya ayatuha nafsu mutmainatu rji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan lu ci tegu fadduxuli fi ibaadi kon fee dugaluloo sa bopp ci jaami yàlla yi doo mën a bokk ci ña dugg ci aljaana yàlla ja moo tax fa duquli fi ibaadi rek wa duquli jannati ñoom ñaar ñooy xand muy waaw istirakiya waaye fa duquli fi ibaadi bu amut wa duquli jannati du mën a am kon ubudiya lu am doole la lu ama am solo la gaa yu baax yi tamit yàlla di leen joxoñ tudd seeni melow ci yu bari ci alquran jaam la leen tuddee ne wa ibaadu rahmaani alladina yamsuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum al jaahiluuna qaalu salaaman aaya jóge li muy gàtt-gàtt yàlla wax na ca ibaadu rahmaan niñ def ak seen borom wax na ca niñ def ak seen bopp wax na ca niñ def ak seen morom kon bala ngaa mën a nekk ibaadu rahmaan dafa am foo war a jaar yàlla am foo war a jaar sa bopp am foo war a jaar sa morom fi nga war a jaarak ak sa bopp mooy dëggal sa njaam ci yàlla njaamak ak sang nag defal ma ma fay xamut jaamu ko ki def santaaneem jaamu ko ci bàyyi ay tereem te bul séentu ci moom benn payoor boo ko jaamu woon ba dee mu dugal la safara sant ko gërëm ko ne lii laa mérito ndax jaam ak sant sang amuñ liggéeyal ma ma fay la bu ko sang ba fayee rek mbaa la kon defal la rabihatul adawee defoon moom mu dëggaloon ak njaam sama yoon ci safara sama yoon ci aljana man yàlla dong laa soxla loolu tamit tabaarakallaahu la asiyatu defoon rabbi ibni li indaka baytan fil jannati wa najini min firawna wa amalihi yow yàlla dëkk aljana intéressé hut ma xéewal yaa ngi ci am yëpp soxluwuma ko yow laa bëgg a dëkk ko rabbi ibni li indaka baytan inda indiyatu yooyu daal loo xam solo la yàlla nañu ko yàlla defal moo tax kon ibaadu rahmaan nañ def yàlla mooy ne ñun ay jaam lañ yow yàlla yaay suñu sang li ngay tedd ba tuddee sa bopp rahmaan di borom xéewal yu sotteeku yu dotteeku yi di borom xéewal gu yaatu gu sakkan gi ngay tuur ñëpp ci àdduna seetoo ku la bañ ak ku la baaj ku la topp seetoo ku la moy ak ku la nàngam seetoo bàyyi may mala yi liggéeyaluñ la de ci li sant ak bàyyi say tere yaakaar nga sa xéewal yi nga sottuñu ko dañ la koo war a defar rek ndax mérito nga lu ko ëpp ñun nag buñ la ko defalee ba pare nga dugal ñu safara tamit mérito nañ dugg safara mooy dëggal ak ak ak ubudiya kon loolu mooy defal loolu mooy nañ def seen borom ci wéral ak xommatu ci topp ko te séentuwuñ ca dara waaye nag damay jaamu yàlla bëgg mu faye ma aljana wala musulma ki safara kon day mel ni yàlla bu xamutoon aljana xëyewut jàmm fay mel ni bu bu xamutoon safara xëyewut ñu koy moy kon kay yow yaa ngi jaamoo mbindeef comme moom kuy jaamu ngir aljana fa mel ni kon aljana tax kon yaa jaamoo too yàlla mbindeef ngay jaamu waaye jaamu tamit ngir bëgg a mucc ci safara jaamoo yàlla waaye da ngay jaamu mbindeef pour bëgg ci am ci awaxayam muy safara waaye jaamu yàlla piir mooy maa nge jaamoo yàlla ci def santaaneem bàyyi ay tereem fu ma dugal baax na foofa tamit gërëm naa ko su ma dugalee aljana mbaaxam rekk la mooy niñ def ak seen bopp bu ñuy bind bu ñuy dox ci kaw suuf si dañuy sentir ne suuf si lañ leen bind suñ dee ci lañ leen di suul su ëllëgee suuf si la ñuy xar ñi dekk ci duñ ci dox di rëy rëylu ba mel ni doomi luqumaan ja bam doon ter ne ko wala tamshi fil ardi marahan innaka lan taxriqa al arda walan tabluga al jibala tuula yow sama doom loo def desal kon booy ba def nang mënoo fee yëkkati say mbagg di ko kool ba doj montagne ya mënoo jaay doole damaa yokk poids ba xar suuf si defal nànk loo def desal defal nànk sëñ daara Seex Moodu yàlla na ko yàlla yokk leeram moo ko daan waxee noonu mu ne comme loo def desal booye boo def nànk yamsuuna alal ardi hawnan mu ñu dox ci kaw suuf tekk dañuy dox ci suuf ba nga sentir ne xanaa ñi doxul duñ dox di kepet kepeti duñ dox di jaay ak rëylu daw la ak mbërlu waaye xam na ñoo xam ne fu ñu la romb yaa ngi dégg ding ding ja matu def desal defal nànk kon loolu mooy nañ def seen bopp comportement bu yiw lañ comporté woo di wax wax ju teey am kersa jàpp seen ñàmbur di dox dox bu teey waxuma la doomu aadama yi mais euh, nature bi sax dañ ko respecté suuf si ñu dox sa respecté nañ ko xobi garab yi ñuy romb sax respecté nañ ko kooku mooy wa xaata xaatabahum mooy kooku mooy alladina yamsuuna ala al ardi hawnan euh, beneen bi nag mooy ku baax toujours jàpp sa ñàmbur bëgg lu baax di ca sonn ñu bon ñi dañ la saboote kii yambar la rek kii cëkkalam gilee kii kii xamul fu mu jëm kii moom dafa ne du nuyu jigéen moom ne du toogandoor ak jigéen ñi moom nangam ak nangam dañ la bon loo bon a bon ba mel ni tekkeetoo dara waaye su boobaa nga ne leen sama kuddu jaamu la ràcci wa ida xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaaman sama kuddu jaamu dong la ràcc dem leen ma dem kon ibaadu rahmaan ku melokaanoo melokaan yi de yaay ibaadu rahmaan pire ak xommatu ci jaamu sa borom saa nga lal ca benn intérêt boole koog sa comportement yi yiw nga respecté mala yi respecte suuf si respecté njanaaw yi respecté asamaan si la tiim waxuma nit ñi ñaareel bi tamit ku jël kàddu gu ñaaw jëmee ko ci yow nga ne ko sama kudd sama sama kudd jaamu la ràcc kon yow doo jël sa kàddu di ko jëmale ci kenn di ko ñaawal kon ibaadu rahman lii mooy lii lii na kum ne ci yow donte yaa ngi bokk ci ahlu shia ibaadu nga lii ku mu nekk ci yow donte yaa ngi yore course bokk ci mutasawwifiina ya ibaadu rahman nga lii ku mu nekk ci yow ngay woote ak salafiya walla nga ne sunniyu nga ibaadu rahman nga waaye yii kum manqué ci yow kuréel boo man di bokk adhéré wu ci tuddee ko sa bopp tamit bokkatuloo ca melokaan rek la ñett ñetti melokaan yi foog nga rempli ko li nga def sa borom ni nga def sa bopp ni nga def sa morom ñett yi bu ci manqué bokkatu kenn kon nag yaa ma gën a xam yow mi may déglu ni nga def sa bopp ni nga def sa morom ni nga def sa sa sa borom balil insaanu ala nafsihi basira kenn ku ne mën nga àtte sa bopp yaa gën a xam sa bopp kon yii kum nekk ci yow rek yaay ibaadu rahmaan pire yi ci des nag yëpp nag liggéeyab iblis la mu ñuy yàqal di ñu utal ay kuréel lii ko ca bokk yaay chia ñeelee di leen weddi na juxuñ ay jullit wax yu ñaaw ci ñoom ñii ku ca bokk yaay salafiya dañoo ëppal bokkatuñ ñii ku ca bokk yow mu tasawif nga dañoo yokk loo xam ne bokkut ca woon ñii dañoo manqué ñii dañoo def nangam lépp liggéey yëpp iblis la bu mu ñu yàqal boo demee ca téere ba la tuddee tablisu iblis tablisu iblis téere la boo xam ne yoon yi iblis jaar di ñu yàqal jamaalu diin liggéey ko dana la wax di abdurahman ibnu juus yi dana ci indi euh, maanaam mbeddi seytaane yu bari yu muy jaar di fa waafu julli ñi leen yàq waaye soo ko doon tënk chia su fekkee mooy ñu bëgg waa kër yonantu bi jeex ca tàkk kër yonantu bi gënal leen seen bopp gën leen seen njaboot gën leen seen lépp kon dama ne ñëpp ku jullit ku ne chia nga wala ku dul chia war ngaa fexe nga dem nekk chia ndax bëgg bëgg waa kër yonent bi farata la imaamu saafi waxoon na ko yen waa kër yonent bi sopp leen farata la kër yonent bi sopp leen alquran li muy rëy rëy bu doon am payoor payoor ga mooy sopp waa kër yonent bi qul laa asalukum alayhi ajran ila al mawaddata fi l qurba maam xalifa duwul chia ci waxit mais moom la li mu ko doon tax maanaam mu taxaw ne sopp waa kër yonantu bi mooy fondement diine pour wane na rek fekkee chia mooy sopp waa kër yonantu bi ñëpp chia la wan kon kay man kaana xubbuhum asaasa diini wa buxduhum kufrun bi xayri may ni kon ñëpp chia lañ wala ku ko dugal war nga koo jéem a doon bu fekkee chia mooy sopp waa kër yonantu bi suñ ne fekkee salafiya kuréel bi ñu seytaane yàqal salafiya mooy lan mooy di xeeñtu yoonu yonantu bi ak yoonu saaba ya di ko roy ca def ndigla ya di ko roy ci bàyyi tere ya fekkee loolu mooy salafiya ñëpp salafiya lañ kuy jullit moom nga wala ko ko doonul nga ko jéem a doon te xam ne loolu lu baax rek la su fekkee tamit tasawuf mu na yi mooy ñoo xam ne waxtu julli du leen faat jàngaxal alquran ñi boole ko fuñ toll ñu ngay def istighfar salaatu ala nabi laa ilaha illallah dem ca ba seen baareem ya lañ cee lim koo ko compter ñu nasloo ay kurus di ko ca lim ngir bëgg lim ba gën a bëri bëgg mu gën a sax bëgg xam lan la loolu su fekkee mooy tasawuf ñëpp moom lañ ku ko doonul war nga koo dem jéem ko doni kon boo gisee gisin wi ci ñeenti lonet yi wala ci ñetti façon gisin yi da yëg nañu ñëpp benn lañ li ci des nag seytaane moo ñuy jéem a teqale pour bëgg ñi néew doole mu taxaw gëmloo ne kii chia la dañoo weddi nangam dañoo farparloo ci nangam yëkkati ayib yu bon yu ñaaw di ko wax ci ñoom ñii salafie lañ dañoo weddi mag ñi dañuy saaga ñii dañuy wax nangam ak nangam yooyu ña ko cay dugal bokkuñ ca dañoo jéem a kuréeloo ca kuréel ga waaye bokkuñ ca ab julit boo ko doonee da nga bëgg ñëpp ñuy dund waxuma la ñu génn àdduna yaatal diina ji liggéey ci lu ca kenn mënu waaye boo leen di contour tax nga ne moom laa da ngaa mbubboo ca mbubb ma waaye bokkuloo ca nit ki mënoo koo tere ñàkk kilifa te yow mi ko ci xeex ne bul ñàkk kilifa da ngaa xam kilifa am na koy déglu sa ustaas bi sa muallim bi tur yaa wuutee rek kii da koo tuddee sëriñam yow nga tuddee ko ne kii sama idole la kii sama ustaas la kii na sama nangam la moom moom ngay déglu ay xalaatam kii tamit ay moom lay déglu ay ndigalam wuutee yaa bëri wuutee kii tamit ne damaa bëgg xam kilifa yoon wi jëm xal jaana dafa bëri ay pakk bari ay cëll te man xaw ko lool ku ma gën a xam na ma wan yoon wi mu mën koo xam ba du ma fa kastalu du ma am problème na ma wan yoon wi niital ma torsu yeeg kàmb yi moom laay topp nga ne dafa wut sëriñ dafa yokk ñàkk xam la te fekk na ñoom ñëpp wa tabi sabila man anaaba ilayya ci lañ ni ca chia ya ba ca ahlu chia ba ca salafiya ba ca mutasawifuuna ya kon su boobaa li ci des mooy yaatu dëndu la mën a dëppoo ñi ca la ñu mënul dëppoo ñi maslaa ca waaye ba nga def li dal arab yi arab yi ñu ne benn rek lañ dëppoo li arab yi dëppoo mooy dañoo dëppoo ne mënuñoo bët mënuñoo dëppoo ci loolu lañ dëppoo waaye dëppoo ne mënuñoo dëpp mënuñoo dëppoo day yàq loolu nag moo gën a bëri ñun dañoo men dañoo dëppoo ne mënuñoo dëppoo te liñ dëppoo dafa bëri su ko defee kon nag loola ñuy ànd ca te rafetal ko tam maslaa ko kon nag ibaadu raxmaan a ngóog ak ñetti melokaanam ya ku ko rempli di moom ak foo mën a bokk ku ko rempli wut génn ca ñu tuddee la ibaadu seytaan ibaadu rahman moo fi am ibaadu shaytaan ñett yi ku ko rempli di moom ku ko rempli wu rek bokkatuloo ca ak kuréel boo mën a bokk su ko defee nag njël yéeg ko kuréelante yeeg xeexante yeeg saagante yi matu ko nañ fexe ba ñu dugg ci diina ji dugg ci fexe ba ñu bokkul ñi fexe ñu bokk waaye ñi xas bokk bu ñu leen génnee diina ji dugal ci million wala milliards yu ca bokkut moo gën génnee ca kenn ku ca bokk moo ëpp doole fuuf loolu ñu bàyyi ci xel góor góorgóorlu ci bu baax a baax te ne du dara fii rek seytaane gum ñu jéem a yàqal rek la te lim bëgg ci ñun bu sottee ñu gën di teqali ko gën di gën di néew doole wala tanaasaau fa tafsalu wa tadhaba riixukum jooju rek la bëgg ñun ñu mën koo dund te boobaa ji mujj yàqule kon maanaam ibaadu ibaadu ibaadu rahmaan a ngoog yonantu yëpp moom la ñu woon taabiuuna taabiuuna yi moom la ñu woon asxaab yi moom lañu ñu woon asiyaaq yi ñu yaakaar moom lañu xoon gaa yu baax yi ñu doon roy tamit moom lañu xoon ku dee moom lañ lay tuddee bara ngaa dugg aljana moom ngay mën a doon tamit door caa mën doon su ko defee nag kon li ci des nag mooy ñi sellal ak njaamu jaamu gi ñu jaamu yàlla ñu sellal ko am ca yéene gu wér te sell boo ma toppee suba incha allahu danaa ñëw nag ci yéeneeg sellal gaag nañ koy war a defee ba mën caa dugal lu ca bokk fexe ba génne ca lu ca bokkut ndax ñun ñëpp ñu mën a am texe waaye loolu maa la ci jox jox rendez-vous nga topp ma ci incha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.